jërë ngeen jëf mbokk yi wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo tey nag bu ngeen gisee toogaay bi ngeen xam ne jàmmaarloo door na jàmmaarloo tàmbali na tey nag ñu fekk ñu dajale ñoo xamante ni dañoo bokk ci làmb dégg ay phénomène su ma nee Malick Ndiaye 37 fou xel yi dem ci 32 37 dofi su ma nee Bou Siteu xel yi dem ci Siteu waaye xale bu géejawaay bi xale bi nga xamante ni su jógee géejawaay jóg su jógee jàmm gën jóg su jógee ñi nga xamante ni waa Pikine jóg ah mu war a daje ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye 37 fou Malick Ndiaye 37 fou nag gëj nañ koo gis nekk na xale ba xamante ni su tuusee mu neex su bëree mu neex dooloon ni mbër waaye yoon na jikkoy mbër ndax ndaanaan la ci làmb tey nag ñu dajale fi ñi nga xamante ni ñooy ànd ak ñoom du mën a ay supporter mais ñi nga xamante ni dañ leen jege tey sax surprise la am ndax dama commencé ki nga xamante ni nii mooy Bou Siteu moo andi ki nga xamante ni mooy adversaire Malick Ndiaye dafa xaw a tardé waaye mënuñu koo xaar moo tax ñu tàmbali maa ngi lay nuyu. ñu gis la tey nga ñëw teewal sa sa doom nday xam naa moom ci yoon bi sax waaye mënuñu koo xaar loolu nuyoo ñi nga xamante ñoo lay seetaan ci Wassare Lamb waaw ajal mi ko bu baax fi teew ku ci nekk sa tur ak sa sant mhm. di gërëm ñëpp di sant sumay waajur di fi teewal Malick Ndiaye suma doom nday mala am Pikine am Pikine dégg naa yéen ay recevoir quoi waaw ñu parce que stade bi ñu la gën a jege mais stade bi yéen kese moomu leen ko de. moomuñu ko mais comme yàlla moo ko dogal mu nekk suñu secteur. Mhm. waaw ñëw dalal baax rek. lan ko moom moom làmb ji ko tellement que stade bi bëri nañ ci secteur il faut dem am nay stade mais tey bu yàlla dogalee arène bi hmm. si. non Bou ñooy njëkk ñoo koy dalal ko ñoo koy njëkk a yegg parce que ñu la gën a jege. waaw ah. bu moom soriwul sax géej waa gi nekk mais stade bu la. maa ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay nuyu. la. Modou Modou. doomu ndey doomu ndey Bou Siteu. Bou Siteu doomu géej waaye. tarkindaa bi. tarkindaa bi. <laughs> ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi lay ñi ñi ngay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi bëggee gars yëpp. Mhm. nuyu Baye yi mafia bi di bëggee ñëpp. xam nga di rafetlu plateau bi nii xam nga ñëw ñu dalal ñu waxtaan jàmm bi rafet. nga ñëw euh, def jàmmaarloo sa mbër ànd la Bou Siteu noo gisee loolu. mais Fall kii champion la. parce que alxuraan bu jugee rek dañuy jug parce que suñu xel dafa dal ci moom yaa ngi comprendre mbër dafay def lu leer naññi signature contrat yi ñu daje yëpp dañu wax rek loolu la ñuy appliqué. ñoom hmm, du wax làmb ji làmb ji jéggi na dayoo de. bu ñu dajeel ñëpp ko sut. mais est-ce que yow ak xam ngeen seen adversaire da ngeen tolloo. noo da ngeen tolloo da ngeen doo ba lépp dangeen koo dóole. noo ndóo ñu bëre. ndóo leen bëre. non bokkul sax. parce que ñoo bëre. non a bëre nga mënu bëre ah? ah. parce que xam nga lëf lu ñu olof Njaay di wax naan Dakar du saf ñaari yoon. lan moo fi sàlli. non dafa sàlli <laughs> ñaari yoon. Malick Ndiaye daa sàlli ciment bu tooy bu tooy ñaari yoon. déet si àdduna moom kay da ngay saf sàppi. pare non mais Malick sàppi na. moom wax na wax bi nee na du saf ñaari yoon. Mhm. bii ciment bi ciment bu xasee ba wow jàpp ciment na mu woowee nañ xool loolu lan moo ko woo jàppal ko ci loolu. non ciment bu wow mënul tooyaat faal. da may déglu waxuñu subaa day wow di tooy ñu nekk ñu bâtiment buy sol ndox Malick Ndiaye suñu mbër mi dañ ko xam da nga wax sànq loolu important li ngay di nuyoo. mais mhm. Malick Ndiaye mbër la boo xam te yaa ngi ko ñaar a tolloo. Mhm. Malick Ndiaye moo ko njëkk a moo ko jiitu ci làmb ñun adversaire bu ne am na ko sama mbër da ko. mais est que am ngeen adversaire bu mel ni Bou Siteu. déglu ma maa ngi ñëw rek Malick Ndiaye musul bëre sax ku mu tag ku mu tolloo bu bëree ñëpp ko depuis Mbapat ñëpp ñu jumloo daan leen te yàlla dafa def ñoom foofu ñu dëkk géejawaay ji nañ ko miin foofu jiglaayu Malick Ndiaye la. mais nga ñëw def jàmmaarloo gis Bou toog. gis naa Bou Siteu tamit loolu ko rek ba maa ngi ciy nawloo parce que nit tam da ngay remplir sa contrat. yaa ngi dégg ñoom ñaar mu nekk combat xamante ni ñëpp koy xaar tey doo toog ñun ay moom jëmbalañ ay amateur et sportif. mais est-ce que Malick dafa sàlli saali mooy lan. xoolal Dakartu boo ko xoolee da nga xam ne mbër xoolal Abiyas baa fa nekk mais amatul. mbër Malick Ndiaye bu saali woon. fekk nañu ah. signature contrat yàlla xam na la man bi ma duggee gis ko dama ruus yàlla xam na ko. lan moo ruus ko ne mbër waroon a jël ki laaj ko moom loolu avant su affaire yi commencé dama ko wax loolu. jàmbaar ne ko kii da daan ñu la kii nga daan. kii na affaire yi noonu. moom moo am problème moo juum moom làmb tëri rek. mais moo ko wax ma a jël bi mu ne ma kii boo ko daanee kenn du. non mais attends yow lan ngay xeebee Malick Ndiaye xanaa pour Malick Ndiaye li a def. waaye booy daan da ngay daan xam dañoo xam suñu mbër. booy koo xam ne boo ko daanee ba pare ñëpp dañuy xam ne yow mii daan nga mbër. comprendre mais xam nga buñ ko bëgg c'est que lu tax nga jël xam nga non gars dañ koo fàtte woon gars yi ba ko mayaat ba ko dimbali xam nga waaw ba ko dimbali waat rek ñu indi du affaire venger du affaire venger maa ngi jaar dafa toj géejawaay wax yow nekk bërikat da nga wax sànq lu garaaw mbër dafa bërikat la woon bërikat la woon bërikat la woon

loolu am wax di dëgg. loolu am na bu ñu xamoon amul nekk ci moom duñ ko tëgg moog Bou Siteu. yaa ngi dégg. Mhm. parce que boo gisee ñu indi ko moog Bou Siteu. non gars xam nga loolu xam nga war loolu promoteur Pikine xam nga dañuy def solidarité. kàggu day may may ndox parce que ñii dañuy tàng. non <laughs> promoteur promoteur Pikine yi ñoom ñooy def solidarité xam na ne bu ñu tëggee combat dañuy jël doomu Pikine dugal leen ci biir parce que xam na ne gars yi fàttali leen ah. mais xam nga yeneen promoteur yi dëkk feneen duñ ñëw di jël ay Malick Niang di ko tëggal ay combat mooy li sama wax jaa ngi ma la bi da koy da alxuraan naan ne tey dañuy jógee géej waaye fu ne jàmm gën mais man li ma ci jaaxal mooy état de forme bu Siteu tuutiwaay bi loolu dara mbër du question ay ngande di ci dëgër loolu dara da ngay dëgër. bu kum jàpp da lay tër huit combats la def am six victoires deux défaites. mais mais mais yoon kii nitu yoon la. barke alxuraanu karim mais promoteur dañu war a bàyyi di may seen booy ay buzz di leen tëggal ay lambu di leen may ay pro. léeg-léeg dafa jeexal. mais mais wuy ma jàmbaar xam na ne jeexal la kan Malick Ndiaye dañ ko may bës yow jour boobu lamb ji boo ñëwee xool ko sa waay toog bi jeex ma rek déglu ma dafa ñu nekkoon dafa tàng mais benn yoon nga découragé ma ko faal yow liggéey wax wax moom moo koy wax Bour Siteu Malick Ndiaye buñ toogoon fii non dépassé yooyu noonu yaa ngi may dégg non mais dama waroon ñëw Malick Ndiaye daa waroon ñëw Malick Ndiaye dina ñëw yaa ah. nga xam boo ko soxlaa day ñëw léegi nii sax mu nga bëggoon prise pour mu ñëw parce que adversaire dafa ñëw yaa ngi may dégg mais lan moo tax kii bëgg wax na da ngeen a sàlli da ngeen a xew leen ah dañ leen may chance parce que daa mujjee mbërëm daa mujjee compétir moo tax mu mhm. taxaw di wax sàlli te dem na Malick Ndiaye waaw amul kuy ci kaw suuf nekk si àdduna déggoo turam wala xamoo ko mhm. sànq yaa wax ci moom nga ne ko Boury Siteu lu tax mu tuuti di toj mhm. yaa ngi may dégg loolu su ñu la njëkkee moom dañ koy dalal baax ñun dañoo mbapat Pikine ñëpp ñu xam soo gisee mënuñu wax si mbapatu Malick Ndiaye Pikine la dëkk juddoo fa yaroo fa mais da ngeen xaw a retard nag yéen da ngeen xaw a retard wala ko dem boppam ko dem boppam moom na ko teg fee quoi comme xaw li retard da may déglu boppam dañ bëri arène man dama wax yow ci esprit ci làmb mhm. waxuma dama toog di la waxal ay lu ko neex ak man Baye Fall la amateur bëgg làmb mhm. tey moom ak Bour Siteu laay yemale yaa ngi may dégg parce que ñoom ñaar ñooy may da xaar ñooy tax làmb ci taxaw kon mhm. du ma jéem a tuuteel Bour Siteu di teg fenn Malick Ndiaye mais le jour yi su boobaa di nga xam ne bu la jiit ci léegi lu la moo lay wax kaay toog yàlla xam na ne ah xoolal jàppale ñu jàppale ñu am Fall. Mhm. Malick Ndiaye ko. xoolal Guédiawaye moo la benn affaire. moom kese actuellement nii actuellement nii bu boo nee Balla Gaye Guédiawaye laa la wax de. Fall kii li ñuy génne foofu kenn du ko fa génne. yàlla xam na loolu. lamb ji xoolal promoteur bu koy tëgg moo la gën a xam ne combat bi la waroon def. mais lamb ji nag parce que xam nga mënoon def grand combat parce que ñun mafia ah, bi li ñuy génnee ngir Guédiawaye bu rek mu koy jël marle ak ak ak kii def leen combat spécial. keroog eh. keroog promoteur wax na ko nee na combat bi moo dàq sax grand combat bi parce que xam na liy ñëw. parce du pare Malick parce que Malick fàtte nañ ko. waaye ban fàtte mais bi toog fu la neex 2STV boo toogee béykat da ngay dégg di wax. lamb ji ku koy neexal bu moo koy neexal yàlla xam na loolu. stade li ñu fay indi kenn du ko indi Malick Ndiaye Malick Ndiaye Malick Ndiaye kenn xamu ko ma kii xewi na da eh. ko xewi na koy xamee yow may mel ne rek si <laughs> xool ko si waykat yi yëpp a yem ku xes ba tegu yaa tegu mais boo xewee xewi nga eh, bàyyi bu waykat yi xewaat amul bàyyi waykat yi bu benn waykat bu xewi dafa sali fall non dafa am waykat yu seexay comme ni wax ni feebar boobu non gars yi dañoo sàppi bi la feebar gàddaay ñëwaat ñu nekkuñu non gàddaay ñu ñëwaat de eh, gàddaay moom bala dem gàncax ba eh, Balla Gaye doo nga ko. léegi xoolal awi ba <laughs> Dakar Dakar billaahi ba àdduna baaxee ba léegi Dakar du mas a saf ñaari yoon. mënul nekk si àdduna. waaw léegi man xamul lu sama problème xamul sama problème lan moo tax Malick Ndiaye ngeen jël ko xeewil ko ci saa si. non dafa xeewi a toj la a génn si gis chaque jour télé yi dañ koy seeti fu ne parce que dafa xew nañ nangu loolu. loolu ñoo la si njëkk. bari na ma rek. bi la wala ñu nekk suñu ginnaaw dañuy jàppale. xaaj bi nekkuñu suñu Malick parce que gars yi dafuñu quoi jëluñu seen xaalis di ko def si ay mbër yoo xam ne mooy mu def nii moom bu ko rëccu benn yoon. lamb ji loolu jarul wax lamb ji jaay mu nekk suba ndax faaw ñu. exemple laa lay jox ku wala mhm. lamb jooju même bu yi amul ay signature ñoom ñaar ñu jàkkaarloo war leneen ak leneen lamb yi nekk loo xamante ni yéen yéen seen bopp yéen ñu ko tëgg du yéen a du yéen sax yéen a teewe lamb ji parce que Malick a ci boppam moo war a am fu mu jëm am fu mu jóge booy bi neen daa bëgg a dem bëgg a yéeg. Malick Ndiaye de Malick Ndiaye na yow si mbedd mi waaw da waa léegi non waa léegi li jël ko yéen la moo tax ngeen na ma siyaat dir bi nga ànd ak moom du ëpp ma ne ko yow yow boo leen kii <laughs> njaab ku leen gis barki maam Serafal lay wax naan kii mooy mbër bi billaahi yow nga ëpp sa mbër doxin sa bokkul si njàpp si lépp si si lépp da ak Siteu confirmation moom mi ngi adversaire yaa ngi may dégg waaw Malick Ndiaye Siteu mooy adversaire Malick Ndiaye adversaire da taay xam nga moom mooy sama adversaire Malick Ndiaye mooy sama adversaire si sànq de sànq ma nee sama fans la waaw fan sa moom mooy fans moom mooy fans parce que xam nga moom mooy moom moo téye micro yi di wax koo gis mu téye micro di wax rek bu Siteu bu Siteu ñaata combat bu Siteu moom moom si ñaari combat ba dem géej waaye la fàtte sax ay communique ay isa mi ngi ci yeneen business yàlla xam na ko fàtte na sax lamb ji ko isa mi ngi préparé yeneen lamb la moo fi nekk rek kenn préparé wul ay lamb bu Malick Ndiaye 37 coups kooku màgget la xam nga màgget doo nekk fi di ko préparé di ko dox da ngay rey kooku da ngay tuuti entraîner pour ñeneen moom lañ koy ko pareel pare lañ ko wax ba pare. xoolal isaan pour ñeneen ñi ne suñ kanam moo tax ñuy wax. dé dégg naa mhm. ko miin foofu suñu njiglaay day jël nañ combat sax entraîné ñu deux semaines ñu ñëw daan dem suñu yoon. waaw ah, bu ne géejewaay dañ ko miin ma rek soo gisee wax loolu. man Pikine laa fa laa dëkk. yaa ngi may dégg géejewaay Pikine seize communes la moo jur yëpp. Mhm. du dëgg la yaa ngi dégg. Mhm. mais boo déggee ma koy wax loolu parce que moom laay déglu ci ni ñuy waxee ñun tey Bou Siteu mi bu nekk woon dara wala dara duñ ko jël soxla wuñ ko. mais est-ce que nekkul may sens tamit pour ngeen dellu si mu may sens non non non moo may sens. billaahi moo leen may moo leen may xam na ne fàtte nañ leen. mais yéen ñaata at ngeen toog def année si wala dafa interview wala wala daa doxal si mbedd mi nga laajte yi sax laaj ne kan mooy ko. dernière génération bi xamuñu ko doxal ci mbedd mi nga yor micro trottoir nga laaj gars yi paa yi maire ne ka mooy Maligna 37 pour xamuñu ñu wax la fu mu dëkk waaw d'accord da nga may déglu ma dama xam nangu loolu tey Malick Ndiaye moo boo xamante ni Sénégal trottoir fu ko neex bañ na ba ñun mhm. sax ñun ñoo fay entraîné da ngeen romb exemple wax quoi da ngeen romb dañuy romb rek ndaw eh, eh, jaar dañuy romb rek mbër buy takk ngemb ci kaw àdduna waxuma la comme lu muy wax noonu ñu ko xam Malick Ndiaye ñëpp a ko xam. mais Malick Ndiaye ñaata combat la def. Fall xoolal dafa micro direct quatre défaites quatre défaites quatre défaites ok léegi bu ñaari combat la def huit combat la def six victoire ñaari défaite. combat gaaw du neex du leer te ñu bëree jiitu ko. parce que xoolal lamb ji ñi fi jiitu woon ay booy ndaw ñoo ñëw leen Ah, mais dañ koy wax eh, eh, eh, limal ay ñoom Moustapha Gueye ñeneen ñeneen ku leen dàq bëri Moustapha Gueye Balla Gaye ko daan ko defaral Balla Gaye 2 ku ko defaral Balla Gaye Balla Gaye 2 ñëpp moo tax xoolal ancien gloire yi mënuñoo saf ñaari yoon bu ñu xamee ne affaire yi métti na dañoo daw gi nga Malick Ndiaye tracé fu combat bi moo ko desee combat bi la sa waay da ngay teg lu teng barki alxuraan mu daw génn làmb ji Bou mhm. moom du wax loolu moom nag mun na wax loo parce que Malick Ndiaye bu nekkoon dara que bëgg na Malick Ndiaye kese gëju fi le l'essentiel fii boo gëjee bëre lépp la mu dal boo ñëwee le jour si nañ xam ne mbër mi ñëw na mu pare ñu lu ñu soxla mooy ci kàttanu yàlla doole séeréer ba sëñ affaire bi Malick yaakaar muy mbërëm man gën naa ne moom dina daan du yàgg sax. gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo ak Wassare Lamb nañ dem xooli ki nga xamante ne mooy entraînement Malick Ndiaye 37 Fou ñoo ngi doon jéem lijjante lijjanti entraînement bu Siteu waaye affaire dafa xaw a tagate mais gars yi des fois dañuy làqatu làqatu yoo xamante ni da ngay bëgg am seen i entraînement sama xaw a të kaaku ñu dem xoole entraînement Malick Ndiaye te dellu si waat gis ngeen noonu lay demee dem nañ seeti entraînement ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye 37 fu ba dellu si noo gisee entraînement Malick Ndiaye. entraînement bi macha allah parce que ñun diin la ñuy suuf te loolu moom ku ne. force naturelle. déggoo li ma sama mbër yàgg la dofloo gars yi de yàgg na leen yuuxuloo loo gën a rawatina sax combat bi ñoom ñaar boo xoolee ñoo xaw a neexoo bu sàcc dem Malick moo parce que ñun min nañ ponkal yàgg nañ ba pat contact bi ñëpp. yaa ngi dégg te bis bu ne bëri nañ Malick Ndiaye ñam na victoire ñam na défaite mais pour biir pour Siteu moom Malick Ndiaye loolu combat la du ma Ndiaye. Malick Ndiaye doy na leen. Malick Ndiaye ñu nekk déglu ma la Malick Ndiaye bëri nañu deux semaines combat kooku fitam moo tax ñu ko topp topp ko moo tax ñi ko bëgg bëgg ko yàlla xam ne ni. mais est-ce dof yi ñoo ngi ànd ak moom ba léegi. dof yi. dañuy wax 30 30 30 37 dof dof yi ëpp nañu sax 37. 37 yi ñëw dëgg woon xam nga moo loolu moo lay wan ni 30 37 fu ay dof lañ 37 fu njaxas gi la ay intellectuel ñu ngi ci ay bayfaar ay jànkat ñii di jóob nekk groupe boo xamante ne ay booy yu bëggoon làmb. di ko foowee Pikine bëri na ay naanaan yu fa nekk. Mm-hmm. jamono boobu noonu lu naan boo nekk tout temps dem rek Malick Ndiaye amaana bu nekkoon ci ay loxo bu baax weesu woon na fii sax. mais boobu heureusement yàlla jàpp si boole ñoom ay ñoom père Amersey ay père Bongo te Malick Ndiaye kuy mbër da nga kaa parce que Malick Ndiaye bu xëyoon géej lay yenn tëddee ko doon yóbbu këram danaan nekk foofu di entraîné. dox la dof buy liggéey. dégg nga wala ñun ñuy ànd ak moom ñu wax gënoon dof parce que ñun ku lu koy dox ku doon dox dama gënoon lu mën ak moom. xam nga tey am na mbër yoo xam ne di ngay toog naan mbëri léegi ay xarit lañu. Mhm. mais su ma leen di woon ay ay ay ndamam bi wala ay pigin wala leneen loolu sax. Eh, waa parcelle la waa jeex na foofu moom. parcelle parcelle xaritoo jeex na foofu. booy fay <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax. ñu fu la dem nañ fa bëreem ba pat Malick Ndiaye pour wax la fitam ak mën a bëreem moo tax ba léegi ñu koy tudd dégg nga mën la combat deux semaines bëri na ko. kooku mhm. lépp bëree. noo gisee entraînement Malick Ndiaye gis naa nice. nice nice entraîné na quoi mais. comme li ma la expliqué sànq rek non non ma jaaxal man naan Malick Ndiaye ñëw na fële mais ñaxul. waaw man de maa man de fi mu toll saa yu bëri maa ngi foofu. mais Malick moo lekk avance moo war a ñax. la diw ma rek man gis naa entraînement bi. jaar na yoon mais man lu ma jaaxal mooy damay fàttali jamono ju nekk école di def EPS parce que prier prier waaw prier man prier ko gis si mbër man prier. gars def xam nga prier gars def EPS ñoo ko def. prier nag naa d' naa wala déglu rek. dafa wax mu déglu na ma déglu si <laughs> làmb. waaw mbër boo gis muy prier mooy yooyu wute en plus nee na leen day njaabu golo di tëdd di. booy nekk xalaat na boo rende boo pare da nga ñu entraînement bi des na ko di boobu moom li ma la wax rek daxaatu saf ñaari yoon parce que li mu mënoon mënatu ko day gis da def tuuti di soufflé. bàyyi répétition bi waxal lu bees wala toog di soufflé yaa ngi dégg mais yàlla la yàlla yóbbu si entraînement bu Siteu. wax loo indi ko te wax nañ la ko ko moom. waaw ñoom ñoom ah, dañoo xaw a kii sport sport xale sport xale. est-ce que nekkul Siteu daal liggéey non du loolu de. Ah. <laughs> sport xale moo koy def sport xale moo koy def gi nga sa kër bi dina ba toll foo xam ne nii li nga mënoon dootu ko mënati yaa ngi dégg sport xale moo koy def bala nga koo def benn cent mètres nga ñëwaat da nga xam ne sport non mais boo tegoon boo gis naa daw bi mu daw ak tat bi mu def li muy daw rek dèjà li muy wax mi ngi mi ngi apat nga war a xam ne xool bi mun ah bi mu naan man kese maa fi nii di wax mais mënatu ko xol bi moo xol bi mooy tëb. ki day xaar day xaar non non koo xaar non damay wax rek. yàlla xam ne si lamb li may wax nii dëggantaan la. bu nga nit moom sax xam bu baax a baax. waaw léegi lamb léegi mën boo ñëwee ci bésub lamb ji Malick Ndiaye yéen sa mbër bu métti. noo na ne. billaahi ah. wallaahi taalaahi. waaw lamb ji ah lamb du yàgg. mais ça va est-ce que nekkul woon entraîné. lamb ji xam nga moo ko moom. lamb ji xam nga moom. Ah. ëpp sañ-sañ ëpp fit gën a moom moom lamb ji. te lépp wagala nag lamb ah. lamb ji lamb ji lamb lépp luy capable ak fit ak ko ëpp affaire bi du foofu. ci nit ki la ci jëmm ji. non mais Malick Ndiaye Malick Ndiaye mënu leen ko ëpp sañ nit wala nga wax benn affaire nga xam ko quoi moment bi muy toj. nga xam ne kii am na sañ-sañ mais da dem ma dégg nga ma yow xamoon nga ni Malick amoon na sañ-sañ. amoon na ko mais est-ce que ci moom ba léegi mëntul nekk loo gën a jëm mag xoolal li nga doon def day wàññeeku yow yaa mag Malick Ndiaye moo ñu mag fuuf Malick Ndiaye na non Malick Ndiaye ki mënu mag Malick Ndiaye non waa kii Malick Ndiaye Bour Siteu a mag Bour Siteu mais moom mi di wax xam nga sànq dama koy dégg mu naan non ana mag mel ni ku âgé wala ancien gul waa yow ngay xam Malick Ndiaye Malick Ndiaye ñëpp moo ko mag yaa ko xamul dégg nañ ko dañ koo xam doo ko jël dañ ko xam doo ko jël dañoo miin Fall dañoo bokk école rek xoolal billaahi wallaahi bokk ñu bokkuñu mais bokkuñu classe Ah, mais nu ngeen waajee nu ngeen waajee làmb ji eh, lamb bi ñu ko waajee ci lépp Pape Sarr ku ne xam ne dafa xam làmb bu ñëwee taxaw li man kay bi ma buusi te waxee làmb ji taxaw na mën na ko ki tëgg loolu de doful lii laa ko wax ki tëgg làmb ji xam na ma ñëw fii pare ko pare Pape Sarr boobu nga wax noonu mhm. dëkk làmb ñëpp bëgg ko mais ngi dëgg li ki sànq de déglu rek dafa nee na waa Pikine yi da leen jàppale da leen di jàppale parce xam na ne xam na ne eh, xam nga promoteur euh, Pape Sarr li mu def doomu Pikine yi ndaw yi xam na ne dem nañ bay fay dem nañ ay jeexal mu yëkkati leen neexal leen mu yëkkati leen leen mu ne xaaruma boole na ne ñëpp xam boole na booy wax boole kenn xamul du siiw man dafa ne bu dafa nekk ci yoon te ñëpp xam nañ ko ñëpp ngay bàyyi xel lambam gars yi da ngay seetaan ne ñu boole ko boo bi xam ne fay na xam nga pour mu suqali waat Pikine. waaw mën ko taalaat ko ñu nit bu dee ba fay nit bu dee ba fay ngeen bokk benn kii. Ah. jàmbaar dimbali parce transit fu mën na dem seeti Pape Sarr ne ko kat Fall dama dama yàgg ci ci ci tunnel yi guerre il nga génne ma jéem a siwal loolu bu ko waxee loolu saa da ngay siwal ñu wax dëgg yow ku ñu wax la loolu ku ñu fekk la sa néeg. mais fi ngeen toll nangu ngeen may sens ñun ñoo koy may sens parce que xam na ñoo koy may yërëm ba ko génne saako yu nekkoon xam nga ba ko xëccaat ñëwaat boole ko si gem mais saa waay kii kii jeexal na dañuy wax dëgg rek ki neen dañ leen saayax suñu toll nii waaw Pape waaw kooku nit mënu ko tëggaloo làmb kooku làmb la ko mooy xool lu neex lu ak askan bi soxla lu jaar yoon. mais léegi Bou Siteu mayu leen sens yéen. non koo xam ni moo la raw ku la soxla wala dara nga ñëw mu lay may sens. mais ne mbër mën nga ko jiitu si làmb mu raw la. ñun xam na mbër mën nga ko jiitu si làmb mu bëgg maa bëreeg maa leen lu ci bëri ci nekk ginnaaw ñun xam nañ ko. lan moo tax bëgg bëgg maa leen jaay merci beaucoup man tey du ma toog ma naan adversaire bu bu nekkul dara kon ñu jarul ñu koy jël. Mhm. comme nu mu doon waxee noonu foofu sànq man na ngay déglu sama wax xam ni kii dalay wax waxi nit. Mhm. mbir Siteu bu nekk woon dara duñ ko jël. Mhm. yaa ngi may dégg. Baye Fall la mi ngi nekk loolu moo tax mu bëgg a bëre ak yéen. ndax a moo bëgg a bëre ak Malick Ndiaye. non non bu wax loolu dama d'accord dama d'accord loolu loolu amul loolu amul. eh taxaw eh. ne jox ma Malick Ndiaye xam nga benn signature contrat dégg naa Malick Ndiaye fu di wax loolu. naan booy dafa ma yàgg a topp dafa ma yàgg a topp. musu musu ko topp musu ko laaj mais mais soo demee dafa gis dafa eh, gis xam na ne musu ko laaj boo demee dafa yàgg gis maa njaay band gi mu daan wane ci làmb ak ni muy neexalee nekk eh, dem gars yi war a bàyyi naan ay nit may topp di ma laaj Malick Ndiaye du musu ko laaj ko topp ñaari nant yu dajaleñ. waaw kon léegi waaw léegi te xoolal jour làmb ji ngay soog a xam ne ñaari nant yu dajaleñ. da ngay dimbali parce que dafa fay ñu waxante dëgg dafa fay. nañ dépassé wax boobu dugg ci làmb que dafa fay fay lu fayoon. waa léegi waa léegi bu fay. doo koy doyee ba koy daan fa la la yóbbu. dañu waxante dëgg. na ñoom ñoo ko xam. noonu la demee nag moom ñu laaj eh naan Absa Absa ko dama bëgg nga ñëw dimbali booy bi jël ko booy bi xëy na dama bëgg nga teg ko si temps. léegi Pape Sarr moo wax la <laughs> déglu ma xam nga déglu ma lamb ji xam nga lamb ji wax mënuñu lëbëj yóbbante ko ne ko Boucher taa ngi nii di la dégg déglu rek moom laay wax man moom mooy sama adversaire moom laay waxat. Boucher mais Boucher dana la dégg Boucher taa ngi nii toog. xam na ni Malick Ndiaye ci boppam. ñi mu bëreel secteur am. ñoo ko loo ñoo ko laat ñoo ko dàq bëri ñoo ko def lépp te jumloo nañ leen xamal na xam ne am na. mais nag combat bu mujj dama gis mu zongale booy bi zongale booy bi léegi nag léegi nag li wax d'accord naa li wax d'accord naa loolu de li wax d'accord naa de li wax d'accord naa nit mën nga ñëw daan ay magam yëpp a nee na booy bu ndaw bi ngay xeeb bu tàng bi ñëw fële eh. bu mujjee ñëw moo lay daan boo xoolee xoolee lamb lamb xoola rek lamb moom dafa leer mhm. xoolal ancien gouraal yi mag yi fi yëpp xam nga nekk ay champion day ñëw jàpp yëpp mais ay booy ñoo leen defaral yi nga gis yëpp ña moo leen tekkaloo seen ngëm ay booy yu ndaw ñoo leen defaral loolu la ngay wax mag moo xam ne koo xam ne mag la mais koo xamante ni sa morom bàyyil boppam. non du question mag ak yooyu. ñun déggoo li wax sama mbër. lenn mi ngi ci moom loolu la doy na ma xanaa la koo xam ne pare na pour bëre combat deux semaines kooku bokkul ak yooyu nga may wax moom bëre moom. loolu am fit bi Malick Ndiaye. mais léegi bi nga ñëwee yow bi nga ñëwee takk soxlawuñu loolu. yow bi nga ñëwee takk gis Bou Siteu bu Siteu ñi tuuti. d' accord léegi booy bëreel yëpp laa la bu combat bu combat bu adversaire bu mujj bi sax moo ëpp Malick bu ñu bëreel ñëpp ñëpp Malick Ndiaye. waaw d'accord te xool ku si nekk bu ñu duggee biir ISRA dañ naan bu ko gan gi jàppee da rey mais bu nee taral day réer du xam fu mu nekk. lamb du ay wax. kooku ba tëj ah, barrière yi ñoom ñaar question bi dem mu xam ne gaynde la affaire du dijji dëgër ko gën. jàmbaar ma nga dem ba nekk fo ba yor forme kóob nga yaakaar ne am na doole fekk na xoolal mu ngi mel yaa ngi dégg day forme bu moo fay nekk ni mais amul kattan. di nga doole ba xasee ba génn ci yow Fall kii dafa jeexal li nekkoon ci moom nekkatu fa dañu wax ne dëgg quoi li nekkoon ci moom moom mi ànd ak moom sax xam ne moo ko gan moom moom na gan gi bu baax xam moom xam nga di man si nga lépp tey ñu demoon tërën rek dina xam ne kii dara nekk fanweeri ay booy ndaw ay mag yi mais léegi nag waa ay transit food ñoo xew léegi ay ay ay kii ñoo xew ay sël bu ndaw ñoo xew ah ay càppa cooli ñoo xew Pikine yooyu ñoo fa xew quoi waaw ñun tarkindaa bi moo xew bu xaay rek ñor na <laughs> ñor na bilaay wallaay fii <laughs> fi ay terme wala ay buzz ñu ngay wax Pikine lay soxe ko star chorégraphe foofu la nekk tey moom maali xelam day dal ñun Pikine dañuy sant yàlla parce que yàlla dañu may loo xamante ni may ko gox yu bëri amaana ku ne mën na ko am ñu dégg nañ daal Pikine lépp a ngi fa roi des arènes champion. Ah roi des arènes soo déggee ma wax loolu maanaam Pikine comme fu muy waxee laa koy. xam nga bu ñu wax palmarès boobu bàyyi géejawaay. non waxuma la loolu. géejawaay Fall yow géejawaay géejawaay. dama lay wax waaw boo demee ba yombal xibaar boo laajtee dañ lay wax géejawaay quartier bi géejawaay ñëpp ko dégg. loolu noonu du wax ñoo jig nag ay piqué nag yooyu loolu du wax géejawaay ñëpp ko xam. soo gisee làmb ji nii ñu gën ci am yaqin bu rafet ak yooyu géejawaay Malick Ndiaye xam nga fu ko jigul mais géejawaay bokk sama cameraman bi moom muy signalé ne temps bi jeex na soo amoon kàddu yu mujj looy tàggatoo xam naa ne doyul leen nag waaye jàmmaarloo nii lay demee. waaw soo gisee ma lay wax loolu maanaam temps bi daa gàtt. Hmm. combat bi comme nii la rek sama adversaire xam nga sànq mi ngi lay tooñ mi ngi ne euh, bourse de combat bi passé parce que diw. ñëwul ah diw soo karite diw. yaa ma jox ndox ndox laa naan ñax fii kilim la yaa ngi da ngay ñax ñax yaa ngi nii fendi. moom mbërëm. ñu di bu boobaa. da foog ni garaaw lay sangoo. lu garaaw laa la wax. tàggatoo mhm. mu respecté combat bi. mu wax Bou mhm. am nga combat. te bañ koo xeeb Malick ko xeeb xeeb Bou man Ndiaye lu mu bëri ak fu mu jaar ak fu mu def loolu mënu ko xeeb loolu loolu maanaam waxu nii la rek am na wax yoo xam ne maanaam mooy géej am na ndox loolu jarul wax yaa ngi may dégg mais mm-hmm. combat bi maay ñaan yàlla yóbbu leen ci jàmm. Mm-hmm, pour wax dëgg du ma la wax sax ne la maa yàlla ko yàlla may ndam que le meilleur ko fit ëpp jàmbaar ëpp doole yàlla suñu borom may ndam. gën a liggéey ñun déggu la wax ñun ñun noonu la ñu noonu la ñu débuté woon ba ñu xam ne ñi ay doxle ñu nga leen entraîné duñu bàyyi ñu fekk ñuy dàqale pour mu tas génn doon dem suba bu guddi fa la ñu nekk ñu xam ne ñi ménageur da doon ñëw wala ku ñu munti yor mu xam ne ñi ay terrain ñi seen sonnukaay moo deñ parce que dañ ko teel a bëgg fooyee ko yaa ngi dégg amaana nag làmb yàlla moo tudd lu bëri mais Malick Ndiaye dañu wax li dëgg moo Bour Siteu Malick Ndiaye moom sax xam ne li ma koy wax yaa ngi dégg mais làmb tëri bi daje parce que garab si kaw lay fekkee tey tey loolu li tey ñu bëri ñoom ñaar moo tane année balance mm-hmm. yaa ngi moo tane leneen bokk na ci luy defar làmb nit raw na ko lépp kase ak lépp taxul da koy jël. ndax mhm. mu koy jël parce que ngeen bëre jàppalante affaire yi wéccoo la. Mhm. yaa ngi ko demal bëre ku la ëpp ku la mun yëpp compétir moo gën nga bañ a compétir. ok waaw à part nag. maa ngi mhm. sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan yàlla Pikine am nañ ay combat mel ne Ama Baldé suma rakk yi ñoom Boy Niang ñëpp ñu ngi leen ñaanal ñoom soog jat waa Pikine yëpp seen làmb yi ñuy dëgg moom yëpp yàlla def ci ay ndam ay xéwal te incha allah ba barki màggal gi gëm naa ni mais pour Bou Siteu Malick Ndiaye top 5 lañ koy yóbbu. top 5 la Malick Ndiaye di yóbbu Bou Siteu. kii day neexal kàddu ma jëf la seetaan mais. Wassare Lamb lay seetaan Wassare Lamb beneen bu mu si topp rek. télé comédien lay seetaan naa li naa ne fan seer la la léegi problème bi mooy ah, yàlla nañu yàlla yóbbu ak jàmm si lamb ji mm. xam nga ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo waa géej waaye ñaxal la ñaxal na <laughs> xam nga mm. bu bu jugee dafa am ñu nekk si ginnaawam faal kii du daanu waa kii maam Serafal lamb ji bàkkan bi lañ ci teg du ay wax billaay wallaay moo gën a nekk tout tànk géej waaye mais gars yi ko ngi parce que mbër yu mag yi nekk géej waaye ay Balla Gaye fii lañ toll gars yi dañ leen a pousse ñu yéeg même pare nañ pour pousse ko xam nga ay xam nga solidarité mi waa Pikine Malick Ndiaye billaahi bu tëdduñu sax di ko xalaat Ah. yàlla xam na ko. mbër la danañ ko mais moom na xam ne am na combat. parce que booy lay bëreel lamb ji moom moo ko gën a soxla ko ñun. parce que dafa dem ba gars yi fàtte ko mu ñëw war a wanewaat boppam. ñu koy may chance koy may chance. mais xam nga isaan ni day teg lu ne mais lu mu teg ñu ñu teg lu ko raw. parce que lamb ji billaahi wallaahi nant combat nante yi la. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo wasaare lamb nii la leen koy defalee seeti leen ñi nga xamante ni dañoo jege mbëri wala ñi nga xamante ne nii ay support leen lañ ci mbëri andi leen fii ñu toog waxtaane làmb làmb ti jéegul waaye ñun dañuy dund làmb li mu leen koy waxee chaque jour rek Wassare làmb lépp lu làmb bëgg amateur yi lépp luñ bëgg ci làmb dañuy fexe di leen ko jëli di leen ko jox à chaud gis ngeen làmb ji taxaw na ci diggante Bou Siteu Malick Ndiaye 37 foofu ñu ciy nga xamante ni mooy Pape Sarr taxawal ko nekk nitul làmb ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ak jàmmaarloo li may wax chaque jour rek benn ñaata ak ki naan ñaata mënuñoo yem Wassare Lamb daa ñëw ne Sam ñaata maa ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di nuyu ki nga xamante ne mooy Bou Siteu ñoo ànd ak waaye am si toog ah Malick Ndiaye euh, ñoo koy jaajëfal xam naa ne yoon bi moo xaw a xat ak ñoom am am bu Pikine ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen wax ba beneen yoon ci jàmmaarloo ak Wassare làmb kàggu Adama maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jaa ngeen jëf.